ok salaamaaleykum RG Entertainment ba léegi ngay ni am à la présentation possible ñu amaat tey encore tout de culture man ak euh, Sir Tam Beat ñoo ko war a ñoo ko war a host tey donc euh, on a bi war a wax tey ci talent et chiffre donc euh, seen un boo xam ne saa fait débat ndax forcément sa talent day da lay permettre day nga def ay chiffres wala boog ndax booy def ay chiffres rek forcément tu as un talent énorme donc si euh, dichotomie boobu noonu la ñu war a la ñu war a waxtaanee euh, xool tamit ñan si ñi nga xam ni ñoo ngi def ay chiffres jamono ji ñoom ñoo allier les deux mais ñi ko allier wu tamit ñan la parce que tamit naturellement bu ñuy wax tey jii nii si talent tey dañoo am yeneen euh, forme de paramètre yoo xam ne moom la ñuy juger rappeur quoi euh, les puristes ñoom dañuy déglu lyrics si flow beeg beat bi nu mu siy tegoo ci lool noonu la ñuy yem mais jamono ji surtout ak euh, aspect image ak aspect entertainment bi nga xamante ni Rap def ci ciy suux bu baax ak sponsors yi daw di ñëw les chiffres ça parle les chiffres tamit day am benn njëriñ bu bu am solo boo xam ne da koy am donc jox sama. suma waa ji Cheikh Tam biit xam nga mun nuyoo en attendant ñuy dugg si vif du sujet bi Cheikh Tam. yeah salaamaaleykum maa ngi nuyu gars yi di suivre Edge euh, Entertainment waaw di leen di leen waxaat rek. di leen fàttali. <laughs> waaw di leen fàttali ngeen di ngeen di ngeen di ngeen abonné wu tamit euh, tey partager affaire yi parce que yaa di du contenu qui qui qui venir yeneen contenu yoo xam ne about hip hop la about culture donc. xam nga dem leen dem leen dem leen abonné wu et vous serez servi quoi loolu moom c'est c'est une promesse yeah. donc euh, noonu la demee so tey dañuy waxtaanee talent talent ak euh, ak chiffre ak statistique donc on dañuy dañuy seetlu quoi en tout cas Rap Galsen ba mu tàmmalee ba fi mu agsi nii on parlait moins de ça quoi maanaam ay sama nombre de stream yeeg sama nombre de vues yi loolu dañu xoom ni dañu gis ni kat si jamono yi. yi euh, nouvelle génération bii nii quoi si lañ ko commencé dégg c'est à partir de 2014 2016 lañ commencé dégg carrément non mais sama nombre de vues ñu ngi sur YouTube wala ñu ngi sama nombre de stream yi nangami million de stream laa def xam nga et certes c'est c'est des c'est des paramètres yoo xamante ni dafa am solo mais le talent avant tout quoi donc dama bëgg d'abord ñu wax si ñi nga xamante ni on a des exemples patents ils ont le talent nécessairement waaye ils peinent à faire ces chiffres là mën nañu am talent siiw au niveau national. Mm-hmm. mën nañu siiw mais boo demee nga xool euh, seeni seeni vues amuñu deux cent mille vues amuñu trois cent mille vues waxuma laa nag ay ay un million quoi et pourtant y une génération boo xam ne dañuy dañuy dañuy vanté wu ci euh, ci ci ci nombre de vues fekk bougé wuñ mètre quoi comme ni ko waa ji waxee. comment tu tu conçois ça maanaam am nga talent certes mais sa talent maanaam tey jii vulgarité bi mu war a am amu ko. ñu jël euh, tey jii exemple yu ndaw quand di dit Kalif Kalif bu ënd chiffre ñun ñëpp xam nañ ni c'est un excellent rappeur talent kase la kase la hmm. xam nga mais doo ko boole si ñi nga xam ne dañuy def ay ay chiffres yi nga xamante ni moom la booy di def boo jëlee ku mel ni Péposeur da ngay xam ni kii c'est un talent hmm. mais deful chiffres yi nga xamante ni par comparaison benn Samba Peuzzi mi ngi koy def wala benn Dip wala genre demee noonu hmm. boo jëlee ku mel ni Dof ñun ñëpp xam nañu seen talent ne te moom sax amaana moom moo tane par rapport ak chiffres yi ñi ngi xamante ni ñu ngi si ci euh, game bi mu nekk quoi yaalee aada cannibal yaana yaana léegi lan mooy euh, disons hic bi est-ce que c'est forcément benn euh, contradiction la war a nekk est que guerre la war a nekk wala boog genre complémentarité rek lañ ci war a gis entre chiffre bi ak talent bi. mais ok bon je pense que thème bi dafa bon boo ko déggee nii tu as l'impression que de de dafa. dafa simple mais sooy xuus da ngay xam ne am na ay paramètres yu bëri maanaam nii rek bi nga ko waxee maa ngi xalaat mais dafay am ay paramètres yuy ñëwaat parce que bon tu m'as tu m'as sur ku mel ni Kalif mais tamit bon côté boobu moom c'est une question d'époque tamit parce que ñun da ngay xool période bi nga xam ne hip hop bi am na présence ci internet bi ba nga xam ne commencé nañ ko déglu donc génération bu nekk ak ak ñu mu tollool quoi lu nekk ak li mu tollool bon par exemple boo xoolee à partir de de de la génération Dip Canabasse peut-être un peu bon Canabasse c'était la transition mun nañ ne mooy transition bi waaw mais mun nañ ne à partir de la hip bi dafa dafa am benn présence bu bëri ci internet bi donc. par exemple suñ doom suñ doom comparé tey ñu ne talent ak talent ak lu tax présent maanaam damay xoolee contemporain de Dip maanaam tey mun naa ne ah les contemporains ban contemporain moo fi nekk ba pare il le talent mais amul présence ci internet bi mais par exemple quand tu me demandes dama naan Kalif moom man Kalif fu ma koy teg lenn la c'est une question d'époque de un boobu mooy boobu mooy premier paramètre bi parce que ñi nga xam ne ils sont ils sont propres à écouter Kalif son pas des gens yoo xam ne amoon nañ culture dem déglu hip hop ci internet bi ñu ci bëri ah bon pas ñëpp ñu ci bëri son des gens yoo xam ne ñoom souvent suñ doon déglu Kalif ci ay cassette la wala ci ay CD xam nga donc ñooñu tey bu fekkee ni yow da nga da tey jii Kalif bu doon génnee projet sax man su ñoo ne ma ah Sirtam man sama projet dama koy génnee mais du ma ko def CD dama ko naan grand def ko CD bu ma nee du ma ko def clé ko naan ko clé yow da ko war a def noonu mais pas. par exemple am na ñoo xam ne ils sont parce que bokkuñ ko dama ko naan yow parce que fan base bi ñi lay seetaan à chaque fois wala ñu ci gën waa ñu ci gën a bëri ñoom ñu ngi ci loolu ñu ci gën a bëri sont des gens yoo xam ne gis nga parce que dañ koy wax souvent internet culture la quoi <coughs> des fois dafay dafay jéggi côté moyen c'est pas une question de moyen parce que tey bëri na ñoo xam ne mun mm-hmm. nañ am lu ñu jëndee paas mun nañ am lu ñu jëndee affaire boo xam ne mun nañ ko déglu album mais ils n'ont pas culture dem tey YouTube ne foofu la ñuy dégluwee ay playlist wala dem iTunes wala fenn ba léegi ñu ngi ci époque boobu et loolu tamit bon c'est pas quelque chose de mal sont des gens yoo xam ne ñoom loolu lañ tolloon voilà man. c'est c'est vrai que xam nga évolution mi ngi am quoi par rapport ak disons les les nouvelles plateformes digitales les les plateformes digitales tout court sax mais xam nga chiffre euh, dafa nekk loo xamante ni ça ne date pas d'aujourd'hui quoi parce que pour rappel euh, album mu Daddy Bibson bi. bi mu ne moom moo pété score yi xam nga il a fait les plus grosses ventes ci hip hop Galsen xamatuma sax ñaata cassette la waxati woon sans pour autant qu'on ait pu vérifier cela quoi mais boo xoolee Daddy ma moment bi muy génne cassette boobu bàyyi mais YouTube sax amagul si tu vois maanaam waxuma la sax naan gars yi ñu ngi dem YouTube mais YouTube si waxam créé guñu ko quoi et pourtant moment boobu gars yi ñu ngi ñu ngi jaay ay CD ñu ngi jaay parce que yooyu noonu yëpp c'est c'est autour de ça quoi quand on parle de chiffre c'est autour de tout ça ñaata CD nga jaay ñaata cassette nga jaay ñaata ticket concert nga jaay est-ce que yow carrément yow tu solvable quoi est-ce que tu un rappeur boo xamante ni boo wootee wala boo génnewee gars yi dinañ ko dem déglu ji par opposition ak euh, jamono ji te li gën a tax sax euh, affaire bi di di intéressant mooy tu peux les meilleurs chiffres mm-hmm. mais boo tëggee concert mm-hmm. do am dix personnes dama lay jox benn exemple typique xëy na il se sentira lésé ou pas mais ku mel ni Bril Fight foo mm-hmm. ci ñi njëkk a commencé di am ay million de vues si rappeurs sénégalais si la bokk. moment bi mu signé ak Marodi tout xam nga il a des millions de vues ça et mais ñem ñemewul sax tëgg concert boo xam ne moom moo ko tëgg quoi est-ce que ñemewu ko parce que mën nga am ay nit yu dem di seetaani sponsoring bi bagage demee noonu mais tu n'as pas réellement de fans physique mm-hmm. te loolu noonu. mooy waral tey jii nii benn benn benn benn benn kii di si am quoi benn distorsion quoi parce que tu ne comprends pas yow yaa ngi am ay millions de vues et mais mais tu peines feesal sa buntu gaale sax quoi xam nga mais à côté am na ñoo xamante ni dañuy vue mais dañuy feesal beneen exemple mooy ku mel ni Dip Doundou gis par exemple quoi euh, il est devant en parlant de statistique il est devant tout le monde ci rap sénégalais quoi bien sûr mm-hmm. muy ay nombre d'abonnés muy ay nombre de vues muy ay nombre mais maanaam saa yu tëggee concert day fees. donc comment il a su allier ça et je pense que modèle bi loolu la war a nekk quoi. xam nga modèle bi dafa war a nekk da ngay xew nekk si digital bi mais aussi nga am ay nit. et je pense que moom defoon na travail boobu noonu à la base quoi tey jii nii créer une fan base parce que avant muy présent dëggantaan ci net bi mi ngi doon def mooy lamb euh, lamb joolaa xaw mooy fale euh, Grand Yoff noonu am na benn stade bu fa nekk quoi boo xamante ne d'habitude sax lamb moo tous les ans doon na amal foofu noonu ay événement ak Grand Yoff laay représente Grand Yoff laay mooy li ñuy wax tey jii si benn El Jazz représente représente day tax tey jii da ngay créer une une communauté une communauté physique en plus de la communauté euh, virtuelle et je pense que foofu moo war a nekk tey jii nii kii bi quoi euh, fi ñu war a teg suñu suñu suñu bët mais c'est vrai c'est en concurrence entre ceux qui font des chiffres ak ñi nga xam ne defuñ ko d'habitude sax euh, pour parler d'un contemporain de Dip Doundou Guiss ou de One Lyrical euh, kii la c'est des contemporains de gars yooyu noonu et ñun ñëpp xam nañu ay talent yu extraordinaire lañu am mais ils n'ont pas ces chiffres xaw ma ndax chance la xaw ma ndax liggéey la mm-hmm. mais ça loolu dafa am c'est un constat mm-hmm. mais comment faire quoi yow tey jii bu fekkoon nii dafa am benn genre jàngat booy def wala boo conseil sax booy jox ñi nga xamante ne leer na ne nii ça c'est des talents mm. mais il peine à faire ces chiffres là booy di def lan mooy nekk tey ji euh, tey benn conseil boo leen di jox quoi mm-hmm. xam nga euh, côté chiffre ba tey man damay ñëwaat ci chiffres yi quoi euh, sànq wax nga ko di nga gis koo xam ne il peut il peut avoir des millions de vues ba pare moom il n'arrive pas ñemewul woote concert parce que tamit le nombre de vues n'est pas égal au nombre de base souvent gars yi dañuy jaawale loolu est-ce que nombre am naa un million de vues mooy am naa. loolu tamit question la xam nga tamit gars yi dañuy jaawale par exemple tu as un million de vues sur sur sur sur l'ensemble du territoire sénégalais nga bëgg a woote Dakar du un million de personnes yooyu ñooy déplacé wala un million de vues yooyu loolu tamit gars yi dañ il faut il faut ñu bàyyi ci xel maanaam ku. tey jii dañuy juum trop bu ñu ko jëlee bon c'est un c'est un bon indicateur man souvent man dama naan Sénégal fu mu toll mooy indicateur yooyu noonu fu mu gën a neex statistiques yooyu pour les sponsors la quoi. ñuy war a ñëw ne ah sama produit kii am na tant d'abonnés tant de li mais ku ko ku ko bëgg a jël des fois utiliser ko pour ne kon mun naa tëgg concert tëggu sànq wax nga wax nga wax nga wax nga. Euh, Bril mais yaa a yaa y a beaucoup bon j'ai même sorti du du rap y a Guissé tey gisee maanaam kan moo leen déggul Sénégal. ñaata vues la ñaata kañ lañ def grand théâtre. est-ce que flop la woon. disons que c'est le c'est le pire grand théâtre. voilà voilà donc ce sont des choses yoo xam ne. léegi nag à l'opposé man je connais des gens yow xam nga le pas pour faire de la pub tu connais des des gosses de Tivaouane Peulh yoo xam ne. ñu ngi nii di tëgg soraano te te te te ñoom dañoo am assurance day fees parce que ndaaw feesal nañ ko. voilà te ñooñu amuñ sax man xaw ma sax seen compte YouTube te pourtant dañuy woote Sorano te pourtant day fees seen koñ dañ fay tëgg seen saa tuaan pël dañ fay tëgg concert muy fees del xam nga loolu tam ay chiffre la waaw loolu loolu loolu te mu ñemewu sax tapé seen tur fii yokkal la ci loolu ah. euh, ce 27 novembre bii nii am na benn rappeur bu dëkk Thiaroye-sur-Mer El Mag la tudd El dafa woote Sorano hmm. El mu gef vidéo mu am 1000 vues sans problème la 1000 dafa woote Sorano ce vingt sept novembre bii passé mu fees dell mu assurer le show show ak spectacle mm-hmm. mu assurer ko loolu la quoi c' est juste pour pour pour apporter de l'eau à ton moulin quoi si par rapport des fois dañuy def parce ñun culture bi ñun moo tax damay jàpp des fois dama naan arnaque la quoi gars yi toog fi bëgg a wu ci vue yi pour ne kii moo am le grand public c' est quoi le grand public le grand public bu dee dañ ko bëgg a jàpp mooy le public de Facebook de Twitter de kii man je préfère un artiste boo xam ne i bon tey jii bëri na ay artistes yu woote y'a combien de concerts ci année bi mais ñi ñu xam ñu am un million de vues ñaata yoon nañuy woote concert ci année bi déjà le Séné au Sénégal ñun fii on n'a pas beaucoup de scènes borom 2 millions de vues 5 millions de vues ku ci nekk benn yoon ngay woote benn concert. Ah, défi lay doon défi lay bu mag après à l'opposé mu am benn gaayan boo xam ne moom. chaque mois wala chaque deux mois mu tëgg benn affaire au moins il réussit à deux cent personnes trois cent personnes mu mu nekk ci quoi. xam nga on on le sait gis nañ ko léegi nag par rapport au au conseil par exemple par rapport a deep dose bi nga wax léeg nag la artiste peut avoir wala peut faire le choix ne man yii gars yi nekk du ma ci nekk comme euh, am na am na benn artiste de. de Sanzala waaw gis nga ko bon moom bon il a fait le choix danga naan sa ay doo dem sax mu ne rek donc bon donc c'est son choix mais ñi nga xam ne mais dangay gis ay ay gars yoo xam ne ñoom ñu ngi koy jéemee mënuñu maanaam il n'arrive pas à faire ce genre de chose parce que musique léegi dafa jéggi ay affaire de am naa talent rek mën naa rab dama war a am temps parce que c'est l'industrie musicale c'est toute une équipe des fois. du yow rek quoi du yow rek. parce que il faut nga am ay experts yoo xam ne ñoom ñooy gérer loolu. waaw ñoom ñooy gérer loolu donc quand tu es par exemple benn dip ki wax nga ko. Mm-hmm. benn Dina Tamba. ils ont ils ont le talent waaw. mais chiffres yi léegi nag quoi qu'il en nag. les chiffres ñooy indicateurs yi après. jamono ji ñu nekk bon ñun bu ñu weetee ñun xam nañ talent yi mun nañ ne ah daa saa diw moo dàq rap diw moo dàq mais boo taxee feneen ne quand on parle de de rab ak de chiffres loolu yëpp day dugg. te xoolal li si garaaw du du yem sax tey jii ba si ba si artistes ah, euh, si kese même si structure yi ah, de manière générale sax. da ngay dugg ci benn structure boo xam ne euh, moo gën a euh, ëpp influence quoi dans ce game. Mm-hmm. ak beneen boo xamante ni bu buy soog a juddu la sax limite mais gis nga structure bi nga xam ne def na fi dix ans mm-hmm. ou onze di ko féete. boo demee sur ses comptes Facebook et cetera mënul am tey jii nii sax benn trente mille ou dix mill abone sax parce que parfois dañuy peine pour am loolu. Mm-hmm. mais à côté am na boo xam ne daaw géej la juddu. day mën a am nombre d'abonnés yooyu parce que xëy na comme li ngay wax jamono la. tolloo ak tamit di ko wër. parce que tamit booy day il font tout pour tey jii boo amee euh, cent quatre vingt dix sept mille abonnés. Mm. nga ne acca road to deux cent mille abonnés. gars yi leen abonné leen. très xam nga Samba Peuzzi xam nga mi ngi amoon neuf cent nangam mille quoi abonnés sur Insta. rek gars yi def campagne bi non saa yi dafa war a yegg un million d' abonnés sur Insta. et xoolal vite en moins du une semaine mu àgg foofu. est-ce que àgg na fa Samba il fait des millions de vues et xam nga il fait du du stream gars yëpp moom la ñuy wër e mu ngi aussi job fan base par rapport ak euh, bu waree def ay concert parce que loolu da si am solo tey jii beneen travail la à côté bu gën a metti parce que defar sa i réputation mooy euh, les les manières du digital dañuy xam yooyu quoi i réputation da koy am tey jii képp ko dugg si say réseau mu nekk lu clean sa image nga koy jaay de manière nice pour que sponsors yi song la loolu c'est une très bonne chose te foofu la gars yi toll tey jii benn Pepsi bu waree ñëw Sénégal day xool bu fekkee ni rap Galsen moo ko intéressé day xool kan moo gën a influencé rap Galsen mu daw song la te loolu du ay sound yi nga xamante ne dañ koy consommé mbedd yi mooy nekk seen indicateur non li ñuy xool mooy les chiffres damay dugg si page euh, euh, chaîne YouTube bu Dip Doundou gis mu ngi si cinq cent mille abonnés ok ma dugg Instagram am un virgule trois million d' abonnés Facebook affaire yi demee noonu nga xool ay chiffres yi muy def ñu ne la LNN simplement euh, album bi sur Audiomack am na dix million de stream te yeneen yi ñëwul nga xam ne kat kii c' est un boo xamante ni on peut vendre notre produit avec lui donc yooyu noonu dafa am solo te boo xoolee gars yi ñuy song jamono ji par rapport ak sponsoring yi ñooñu lay doon am na ñoo xam ne nag am nañu public bu ñu tëggee show of the year tey fees dell tous les ans et toutes les régions mm-hmm. waaye lan moo waraloon sponsors yi nangu ñu woon ñëw mm-hmm. loolu tamit c' était une question à se mm-hmm. xam nañ yow yaa ngi def show of the year mi ngi fees mais après est ce que l'image doon na doon na ci topp est ce que image bi doon na ci topp et je pense que boo xoolee si euh, cinq dernières années je dirais pas cinq mais trois dernières années yi Euh, ku mel ni daf il bosse carrément sur l'image il bosse carrément sur les chiffres dont on parle xam nga muy ci Insta bi muy ci YouTube bi muy ci yeneen yi il fait de sorte de faire certifier ses comptes il fait de sorte que kat képp ku dugg ci ay réseau am nga gis que ni voilà kii neex naa song quoi tu vois donc ça aussi c'est des c'est yoo xam ne c'est très important léegi tey bu ñu doon jël benn wala ñaari exemple koo xamante ni il allie chiffre talent mu leen ni kii moom boo nee talent moom waaw kenn waranteetu ko quoi il est il est il est carré. Mhm. mais côté chiffre aussi léegi mais doo lim dib dund gis doo lim sàmm aussi quoi comme ça mu xaw a mu xaw a gën a corsé. donc donc da ngaa donc donc tu ma tête kon da nga nangu ni man nangu naa ni Samba am na talent. da ngaa nanguwul ni Samba. <laughs> laaj. laaj la boo xoolee moom doo laaj na parce que man dans ma tête Samba il a un talent fou. et il a les les chiffres aussi les chiffres. waaw ah. yi am chiffres yi nekkul yooyu ñooy prouver talent am. dafa grave de parce da def sound boo xamante ni c'est pas forcément du mm-hmm. pas forcément. Mm-hmm. Marie ak Cheikh Marie ça ça explose. Mm-hmm. xam nga lu yàqu yow a très contesté ça explose mais à côté boo defee sound rap affaire bi di def nii di di di trotter mooy lii Omzo la doon clashé Dip ne ko sa sound rab yi kenn du ko seetaan comme foot féminin <laughs> parce que saa bu defee sound commercial way bi yooyu noonu vite fait nombre de vues day day day tëb quoi mais bu fekkee sound strictly rap la boo xoolee day yéex xëy na public rap bi ñoo bëriwul wala boo xëy na sound yooyu noonu ñoo jaayul quoi mm. donc pour revenir à ma question lan ngay ñan ngay lim nga ni ah kii de il allie les pour le moment nii quoi si scène sénégalaise à Dip ak Samba Peuzé nañ daal. rap quand on parle de rap mais yow wax nga sànq nga ne quand tu fais du rap même si c'est nice mais talent talent bi du du du bon même si yàlla a le talent mais loolu nag problème bi mooy c'est parce que publicu rab bi publicu rab bi soit dañoo bëriwul. wala publicu rab bi daa daa migré gul ba léegi soit publicu rab bi daa migré gul soit ay possible ñoo fa nekk ak ay seetam ñoo fa ne ne waa baa ñu déglu gaay mais le grand public lu wax le grand public bi nga xam ne par exemple man bu may doxantu Colobane rab rek laay dégg la plupart du temps. waaw da ngay booy dox nii da ngay déglu gars yi dañuy déglu rab quoi mais après tu te mais lan moo tax gars yi nii ñuy déglu du ñu def après chiffres yi fële quoi donc à chaque fois. bon xam naa yaay xaar ma lii mais man bëgguma dem foofu quoi dama dama bëgg a dama bëgg a bëgg ñu ñu par exemple man je ma je veux me sur par exemple qu'est-ce qui bloque lan moo tax ñi nga xam ne am nañ talent mënuñu def yenn chiffres ci loolu lañ nekk di wax sànq ba tey je t'ai parlé de de de ndax public bi la wala tamit essayer de chercher formule bi parce que des fois nga gis koo xam ne dafay ñëw mu ne bon. lii moo am parce que ñoom ils disent pas Dip moo am un million de vues wala Samba Peuzélé dañ naan musique bii moo mën a am un million de vues donc bàyyi ma def ko Peuposé def na ko est-ce que am na ko non non loolu loolu la est que am na ko waaw ndeysaan parce que parce que loolu la quoi des fois ñun formule bi ñun dañuy jàpp ni dañuy tantôt ñu jàpp ni formule la tantôt ñu jàpp ni musique bii moo dox kon moom laay def te à l'opposé y' a y' a y' a y' a y' a des centaines am loolu. xam nga jiguñ mais parce que parce que musique parce que ku nekk indil yow waa léegi nag yow nan ngay ñëwee jaay sa bopp parce que gis nga y' une chose boo xam ne dafa sûr sur YouTube dafa leer loolu loolu loolu ñëpp ko démontré ma experts yi démontré kenn mënu la wax en avance ban vidéo moo mën a vira surtout nag waxuma sax ay vidéo musique mais vidéo yi yi nekk YouTube. personne na peut te dire lii su ma ko defee day viral di nga gis koo xam ne toog na këram on l'a vu am na ñoo xam ne toog nañ seen kër photo seen doom nii seen doom di def benn bêtise rek vidéo boobu def ay mil millions de vues ñu créer ci entreprise am na mooy xawma lan mooy kooku noonu filmé woon doomam ba doom bi di màtt kii ba ñoom ñaar di jooy mais vidéo dafa viral ba ñoom ñu créé ci entreprise experts yi jege leen xam nga ñu exploité loolu ne leen créé leen marque boobu noonu dadi xawma lan ñu créé ci marque parce que vidéo bi c'était juste benn affaire boo xam ne dañ ñoom toog nii di foo rek doomam yi di foo mu filme ko rek vidéo bi kii xam nga la première vidéo sur YouTube à avoir fait un million de vues xam nañ ko vidéo Ronaldinho bi la c'était en 2005 mooy bu muy dóor bal bi muy dal ci poto bi di ñëwaat loolu yàggul dara maanaam kan moo la mënoon ne bii mooy gën a viral maanaam la formule parfaite sur YouTube mënoo ko xam léegi nag musiciens yi dañuy toog naan bon damay dégg sax keroog maa ngi toog benn artiste mu naan non hit dañ koy étudier gars dañuy toog essayer liggéey ne lii mooy hit loolu gis nga loolu loolu c'était c'était c'était peut-être temps bu internet amuloon la quoi mais jamono bii on est tellement servi yow da ngay génnee tey dara balaa suba y a tellement de donc loolu man au lieu que ñuy nekk fii di jéem a ne lii moo dox bàyyi ma def ko mm. mais ñoom nañ jéem a jaay seen bopp donc y' yaa y' a des y' des choses yoo xam waaw talent ba pare mais tamit laa tim saa yi sa fan base ñoo la sànq wax nga ko avec avec avec Samba Peuzzi nga ne équipe bi dafa toog rek ne un million de vues dañ koy wala un million xaw ma lan d'abonnés dañ koy am gars yi dem uti ko mais c'est parce que am nga fan base boo xam ne de un gëm nañ la même bu dee deux cent personnes saa deux cent personnes sur YouTube wala deux cent personnes sur Facebook ñu la nangu woon defal tey benn campagne léegi ñëpp jot la après tam il faut il faut nga nangu benn affaire génnee xaalis am na ci waaw ah, génnee xaalis am na ci parce que le gars il fait des sponsoring def ay sponsorisé vidéo mu àgg foo xam ne yow sa vidéo du fa du tout ne pas gratuit tamit il faut il faut il faut ñu xam loolu Facebook Instagram tout n'est pas gratuit. en tout cas les les les les nouveaux paramètres quoi lépp mooy mooy paramètres yi jamono ji léegi nag ñu euh, euh, dof diire statistique est-ce que sañ na tëkkale Jul ak Kerry James si rap mhm. boo xoolee mooy mooy c'est l'éternel débat quoi. Mm-hmm. statistiques yi ça ne reflète pas forcément tey jii nii talent bi nga xamante ni euh, mooy nekk si artiste bi. Mm-hmm. la preuve liki liki lam faaya boo xam dim xaar. Mm-hmm. mais il a des millions de vues nii easy mu am ay millions de vues. mais mais attends tu ne diras pas kii dafa am talent et noonu ngay gisee tamit ci rab bi koo xamante ni. kii ay sound mën na àgg fu ne. mais tàngul quoi. tàngul parce que xam nga ni lii nii lii muy propose nii c'est pas le talent bi nga xam ne moom la ñuy gis ci taaj si wala moom la ñuy gis ci benn big daal et mm-hmm. Mm-hmm. mais ces gens là ñi nga xamante ni ils ont le talent mm-hmm. te ñoo ngi fi ah, am na ñoo xamante ni fële nañu am nañu chiffres yi mën nañu lim Dip mën nañu lim One Lyrical mën nañu lim mën nañu lim H de Best très récemment ki nga xamante ni disons en vingt deux mois quoi il a su muy ci plateforme digitale yi de streaming et de téléchargement mu mu àgg si Euh, record yu garaaw mais aussi même si ay réseau sax mu tàkk et pourtant presque toutes les semaines mu ngi tëgg ay soirées. âge de baisse nit ñi dañuy ñëw. est-ce que tu donc il faut nécessairement gars yi ko mais ku si topp benn bi bàyyi beneen bi sincèrement di nga guddee parce que soit da ngay am talent ñu ne kii talent gâché la. wala boog ñu ne ah kii de mi ngi am ay ay nombre mais biir gàllem sax bu fa tëggee concert gars yi mën nañ fa petit camp. est-ce hmm. que la formule la formule faire de sorte que nga allier ko te nag mooy li ngay wax sànq si loolu noonu laay laay rebondir c'est bien nga am talent c'est bien nga mën a rap am accès si studio tout mais il y beneen travail il faut que nga am team boo xamante ni day réfléchir si cet aspect digital mm-hmm. te boo yi ñuy gis nii ñuy ñuy ñuy ñuy lëmbe jamono jii nii. xam nga c'est parce que derrière am nañ tiim boo xamante ni seen digital ñoom ñoo koy assuré. parce que si ère boobu lañ nekk ère numérique bi lañ nekk nekkatuñ jamonoy rapajo bi nga xamante ni ñoom wutum jaay CD ak wutum jaay ticket. lañ doon lañ doon lañ doon jiital rapajo amul clip. Mm. ñëpp xam nañ leen. Mm. xam nga ça paradoxal mais rapajo amul clip. Mm. mais ñun ñëpp on connaît Rapadio même booy yi a dugg si rab sax boo leen nee Rapadio bu ñu mënul wax seen son mais ko xam donc la légende bi ngay bi ngay mën a nekk quoi sa talent da koy def mais aussi liggéey bi ngay def après pour accompagner boobu noonu donc la formule parfaite xëy na amul kenn xamul ban son ngay dugal YouTube léegi mu def noonu mu def yi war kenn xamul tamit ban son ngay dugal ci plateforme yi mu explosé mais ce qui est sûr mooy am na benn travail d' influencing boo xamante ni gars nañ ko def ci seen produit génnee xaalis aussi ko quoi pour sponsoriser mais aussi xam nga fay euh, disons euh, chaîne yeeg euh, page yi nga xamante ni am nañ influence bi war surtout si game bi. Mm. pour xam nga sa bagage au moins sax le public immédiat bi nga xam ne ñoom ñooy déglu rap Galsen ñu mën a déglu say say say sound quoi parce que am nga talent bi war. Mm. donc c' est un débat boo xamante ni du tëj léegi. sincèrement parce que quand on dit talent et chiffre moom c' est un débat mais xanaa ñu am luñ ci luñ ci luñ ci contribuer comme ni ñu ñu def tey. di la joxaat parole bi aussi nga nga am loo si yokk ah, balaa ñuy ñuy clôturer quoi. ok bon man li li ma bëgg wax rek mooy rapport par rapport à la vente tamit xam nga vente tamit duñ ko duñ ko duñ ko tënk rek ci ci ay affaire de loolu dëgg la moo tax moom moo indi débat bi sax parce que industrie moom dafa am lu bëri luy dugg en en compte nit ki mun na mën na mën na taxaw nii rek nit ñi am envie gis ko photo rek nit ñi bëgg a gis sa photo xam nga dal na dal dal na am na am na ñoo xam ne tey comme li nga koy wax am na à côté sànq ne nga am na à côté ñoo xam ne amuñ talent mais excusez-moi du terme ils ont une belle gueule. <laughs> non loolu ay réalité la gis nga. exactement gis ay Ed Sheeran Ed Sheeran da koy wax quoi boo xoolee c'est un gars qui qui est hyper anglais bi mais danaan moom xam na ni bi muy dugg ci musique il n'avait pas une belle il n'avait pas un physique bu muy buy impressionné ay jigéen donc il fallait qu'il soit deux fois meilleur que que que ñi ñi muy ñi mu nekkal fii quoi donc ici beaucoup il a beaucoup travaillé pour sax loolu à partir de ce moment da lay woon ni chiffres yi des fois lu koy def du du rek indicateurs yi dafa bëri quoi am koo xam ne moom physique am lay jaay. non sérieux am na koo xam ne photo yi waaw ça fait partie de l'image physique am lay jaay donc nit ñi itam seetaan ko nii rek amuñ ci problème quoi. tamit Sénégal dafa am ay réalité wam les gens tamit le public bokku amuñu pour culture donc maanaam tey dem tapé YouTube sa tur seetaan na moo gën ñu jël ñu jënd ñu ñu jël benn 2000 jëndal ko sa CD quoi loolu moom parce que les gens n'ont pas pour culture d'acheter affaire bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bëgg xam nga gars yi dañ koy wax nee nañ bon selon les chiffres nii gars yi dañ koy wax nee nañ Kiné Lam moo moo moo moom moo moo mës a explosé vente yi moo fi def cent mille ventes ki ne la Maam Bamba bon loolu lañ koy wax ne nañ moom moo fi def cent mille ventes xam nga moom moom bon moom lañ jàppee comme peut-être record record donc même Youssou Ndour sax na cent mille ventes au Sénégal là c'est c'est c'est c'est un même jamono bi nga xam ne nekkuloon waaw voilà même bu ñu nekkuloon ci internet bi sax mm. on est d'accord que affaire yi chiffres yi dafa des quoi voilà donc beneen conseil bu ñuy jox rappeurs yi tamit mun nga toog tu peux rester là woy man duma topp loolu mais latu atu bi am ci internet mooy fayeeku ba faw la quoi maanaam jaay sa jaay jaay sa CD voilà jaay sa CD 5000 nit ki jënd ko pare si dugal ko ci ordinateur am di ko déglu ak chaque jour mu dem déglu la ci playlist bi je pense que boobu noonu moo ëpp avantage quoi parce que mun nga fayeeku dans dix ans mun nga fayeeku beneen yoon xam nga à chaque fois vente yi bu yokkee tam mun nga fayeeku alors que bii c'est une vente que tu fais et tu finis waaw après mu jeex loolu tamit il faut tamit gars yi di ko bàyyi xel en tout cas y beaucoup de paramètres à prendre en compte et y a beaucoup tamit on gagne beaucoup qu'on le veuille ou non on gagne beaucoup à être sur en tout cas le train est en marche voilà train bi moom mi ngi dox te te te booy comprendre nañ ko même grand yi sax xam nga comprendre nañ que ni li booy nekk nii. Mm. instant benn instant moom mooy moom mooy wéy bi. te te finalement tamit ñëpp foofu noonu la ñuy mujjee quoi. Mm. Euh, muy euh, digital bi. Mm. parce que on est dans un monde digitalisé. fépp fépp loo loo soxla tu entres dans le digital tu les as quoi donc euh, gars yi nañ gën a fexe ba tey jii nii ñuy job qualité. d' dans les sons quoi qu'on en dise quoi Rap Galsen moom xam nga manqué wul talent quoi sincèrement. manqué wul talent tey jii mën nga génne un album boo xamante c'est pas trop ça mais au moins dina am benn ñaar ba ñett individualité quoi yoo xam ne ay son yoo xamante ni mën na mën nañoo def la différence quoi. donc ça veut dire que ni ils sont capables de faire de de de, donc ces bonnes choses là li koy mën a récompenser ñoom à leurs yeux mooy nekk tey jii ñu def vente yi war par rapport ak plateforme yi wala nombre de vues war. par rapport gars yi ñu insister ci qualité d'abord il faut que talent bi ñu koy suuxat di ko dundal quoi benn garab nga koy roose chaque jour xam nga di ko travailler au quotidien pour maanaam mu bañ la bàyyi. parce que bëri na da ngay am talent boo gëjee exercer wu buñ la dégloo dañ naan non kii est-ce que moo doon dara temps yee passé. Mm. parce que jooboo job bi nga xam ne mooy war a mën a maintenir sa talent au à au disons niveau quoi mm. mais quoi qu'il en soit. c'est une très bonne chose te dañuy encouragé ah surtout cette nouvelle génération bi nga xamante ni nag ñu ngi wane ni voilà quoi les chiffres ça compte et les chiffres on peut les avoir à travers notre musique te chiffres yooyu après moo lay tijjil bunt yi ba nga mën a am yenn contrat yi yenn sponsors yi wala quelque chose du genre mais quoi qu'il en soit faut pas ñuy négliger aspect talent faut pas ñuy négliger di def ay son yu baax mm-hmm. parce que mën nga def ay vues tey mais suba après lan la lay jural quoi. ça ça ne t'amène nulle part parce que tu n'as pas bossé si dure bi il faut bosser sur la dure te loolu talent moo koy def te loolu waar bu métti moo koy moo koy def donc euh, sur ce ñoo ngi ñoo ngi tëj for the culture bi qui avait comme euh, thème talent et chiffre et la ñu la ñu utiliser waxuñu versus wala talent contre chiffre parce que dañoo war a ànd mm. da nga a am talent à partir de son talent là nga jaay ko jaay sa art dund donc loolu la ñuy wax di leen wax rendez-vous next Sëpp Sow xam nga dinañ ci am euh, yeneen gan yeneen invité incha allah donc that was for the culture salut